naka nag asamaan asamaan ak gaal lu gën a rëy suuf ak gaal lu gën a rëy soo xoolee asamaan bi nga xool suuf si xool garab bi xool géej gi yaakaar nga ne lii dafa jékki-jékki rek am te kenn amalu ko afala yadullu ila fatirin hakimin waa ji ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah mu xam ne yàlla am na naam jëf ci wàllu soo ne jaa a ñëw na ci arab jaa a ñëw na ki il faut am ku ñëw soo ne akala lekk na il faut am ku lekk soo nee akala zeydun al urza zeyd lekk na ceeb wa akala moom lekk na lay fii loolooy jëf ji mooy fa fiil zeydun mi lekk moom lañu ñu tuddee faa il mooy ki jëf jëf ji ndax moo lekk al urza mooy ceeb ji mooy lañ lekk arab yi tuddee lii fiil lii faail lii mafuul jëf ak ki ko jëf ak fa jëf ja daanu suñ sëriñ nettali woon nañu fi benn sëriñ bu doon jàngal taalibeem masala bi jàngal ba sonn mais taalibe bi mënul comprendre diggante jëf ji ak ka jëf ak fa jëf ji daanu sëriñ bi gis ne daal solution bi masala bi pour mu dégg ko il faut ma utal ko solution solution bi mooy su ñëwee suba daal danañ jëflante sëriñ bi ne ko demal ba suba nga xëy teel ñëw taalibe bi nee nañ ba mu xëyee ñëw sëriñ bi summeeku ba desee yëre yi woyof xaar ko taalibe bi dafa fël rek sëriñ bi yéen ko ba rek dóor ci suuf rël taalib bi yuuxu ah sëriñ bi yow mu ne ko jëf ju bon ji ma la daane mooy jëf ji man jël li bon ji ma daane mooy jëf ji man mi la daane maay ki jëf-jëf ji yow mi daanu yow yaay fi jëf ji daanu maanaa yow yaay maful bi mu ne ko jëf ji jëf jël bi mooy fiil bi mu ne ko waaw mu ne ko man mi la daane maay fail bi maay ki jëf-jëf ji mu ne ko yow mi daanu yaay maful bi taalib bi ne ko dégg naa ko waaye nag waa ji su sukay ki koy rek moo ngi laaj baay ci naka euh, lañ euh, fan lay jëf di ñëw te nax wu dafa sew xam-xamu wu dafa yaatu naka jekk su la neexee nga ne saa boo yeewoo rek di liir ci biir nax wu danga gis daqiiqa gu bees waaye am na ay qawaayit nag yoo xam ne du changé soo gisee ku toll ni limaam yi ñuy wax kenn manul mokkal naxwu te xamoo ko soo déggee diw mën na naxwu te xamul sibaway xamal ne kooku kooku kooku mokkalul naxwu ndax ni sibaway meloon ci xam-xamu naxwu sibaway yàlla def ko sëriñam jàngal ko naxwu mooy xalil ibnu ahmad al farhudi xalil xalil ibnu ahmad al farhudi jàngal ko naxwu moom xëy na mu gën a siiw ci sëriñam ci wàllu naxwu ba képp kuy laajte ci naxwu dool dem ci sëriñ bi xalil mais ci siiba way yi ngay dem ndax may yàlla gi ko ci yàlla may siiba way yi fanweeri at yu tegal la am macha allah dee nekk xale am na ñoo xam ne ci borom xam-xam yi yàlla dénk na leen xam-xam ci jamono ñu yëlif àdduna te seen at dafa néew bokk na ci ki defar riyaadu asal ki defar riyaadu saalihina te shara sahihu muslim bi muy génn àdduna fanweeri atam daanaka manqué na te yaayam bi muy dem jëli téere mi gëléem la sëf ba mu fees dell téere yoo xam nekkul ne téere yu mu moomoon déedéet yum taalif moom téere yum taalif ci boppam la yaayam sëf gëléem ba mu fees te fanweeri atam motul limaam Sibawayhi jóge ci dëkkam dem ca iraq ganesi benn waliyu yàlla goo xam ne kisaa yi tudd ci qurraa yi la bokk ci ñi mokkal alxuraan xam xam-xamu tajwid yor seen qiraa gu ñuy jàng te xiraa yi dem na ba fukki qiraa aasim am na naa fi am na qiraa ak hamza فعاصم وكسائي ونافعهم وحمزة وابن عامر ثم النجل على وابن كثير ويعقوب كذا خلف كذا أبو عامر في العد قد نقلا وهؤلاء عندنا القراء عدهم عشر ولا تكن ممن أنهم غفلا كسائي يوم ñoom la bokk waaye moo créé sarf comme ni Khalil créé arud comme ni Ali créé naxwu jox abul aswadi dauli pour mu tëral xawaayid yi mais limaam si siibawo yi dem gane si kisaa yi ci biir jotaay bi la benn waaye wax benn masala fala siibawo yi wuuteeg kisaa yi ci dégg-dégg ci wàllu naxwu ba masala bi moo rey siibawo yi te mu nekk xale bu ndaw nga xam ne ndekete am na ñoo xam ne xam-xam sori na ci ñoom soo wéranteeg ñoom ci xam-xam ñu féete la dégg nit ñi àtte ñu ne moo la féetee ci dégg rek maanaam mu féete la ci dégg nit ñi àtte ne moom nekkul ci dégg rek mu jaral ko naqar gi rey ko parce que dañoo toog ci jotaay bi Iraq foofu la kisaa yi dëkk sibo yi doxandem la dafa ñëw pour ziyaare benn arab ne kuntu ahsibu al aqraba ashadda las an min az-zamburi fa iza huwa hiya dama yaakaaroon jiit moo gën a saf matt ci zambuur xaw ma nan lay olof di waxee zambuur fa isa huwa waaye ndekete yoo aqrab fa isa huwa ndekete yoo zambuur hiya moom mooy aqrab rek ñoom ñoo nuroo ci wàllu matt seen matt dafa saf dama yaakaaroon aqrab moo gën a métti li muy matt ci zambuur ndekete yoo zambuur ak aqrab benn lañ mais def ne kuntu ahsibu al aqraba ashadda las'an min az-zamburi fa iza huwa hiya bam waxe fa iza huwa hiya lol kay werna huwa di mubtada di damiru raf'in hiya di khabar di damiru raf'in te mubtada khabar yeb dañuy rafa ha wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' wa ورفعوا مبتدا بالابتداء ورفعوا الأخبار بالابتداء rafa nañ mubtada wu ngir mubtada wala mom lañ tambalé wa fatahta nutqa bismin mubtada farfa'uhu wal akhbara anhu abada mulhatul irab neene tambale tambalé kaddu gi di wax dal ci tur tur gogu dañ koy rafa wal akhbara khabar gi tontu tur gi tamit dañ koy rafa magi olofi nak dañu mënon jangalé jàngale naaxu ñu ne diggante mubtada khabar suñ waxé wax nga ha ñu né wax jooju mubtada wala la cey tegu moy khabar ndox mi nga ha ñu né neexna ndox mi mubtada wala neex na bi xabar la foofu ngay xamee mubtada wa xabar ceeb bi nga ne ah ñu ne neex na ceeb bi mubtada wala neex na bi mooy xabar soo tàmbalee tur rek loolu mubtada wala la cay tegu xabar la diw nga ne ah ku rafet la rek xamal ne diw gi mubtada wala ku rafet la mooy xabar léegi nag huwa hiya fa isa huwa hiya kay ñi tàmbale naxu sax xam nañ ne fa isa huwa hiya naka jekk noonu la war a mel mais l'imam kisa yi ne waa ji de ngaa juum kenn du wax fa isa huwa hiya neel fa isa huwa iyaha xëy na boroom xam-xamu naxwu teew na dafa bëgg a wane yeneen asalib xëy na yeneen e, firi ci naxwu boroom xam-xam la macha allah kisaa yi mais soo nee fa isa huwa iyaha iyaha damiru nasbin la du damiru rafin il faut nga indiloo dugal ci diggante bi loo xam ne day nasab iyaha te loolu taxaw taxawaayu xabar xam nga loolu day sori motax sibo yi ne ko deet gan bi la mom moy gan bi waye laal nañ fo xamne nak fa la mané ndax kisa yi mo ngi gaganti waji te waji lim wax lool la motax bi kisa yi ne ko dedet fa iza qul fa iza huwa iyaha sibo yi ne ko deet fa iza huwa hiya li waji wax la huwa hiya huwa mubtadaun la hiya khabar la mbir mi jeex ndax ñom ñaan yeb dama yaru raf ilay fofu nak eh, xulo bi ñew boroom xam-xam yaa nga woon foofu ibnu ziyaada ngi toog ibnu hamzataa ngi toog ulamaawul iraq te xam nañ ne kisaa yi mooy sëriñ bu mag bi foofu ba coow bi tasaaroo ba xaalid ibnu yahyal barmaki buuru iraq bi dégg ko mu ne nañ def jotaay xool ñoom ñaari boroom xam-xam yi kan moo nekk ci dégg ñu woo boroom xam-xam yi ñu teew mais borom xam-xam yi balaa ñoo teew ñu ne xam nañ ne li siibooy yi wax moo gën a jege dëgg kisaa yi suñ sëriñ la waaye mënuñu koo mënuñoo wax ne juum na suñ demee daal buur bi toog ñépp toog suñ ñu laajee nañ wax alqawlu maa qaalahul kisaa yi kàddu gi daal li kisaa yi wax la ñoom ñu d'accord ci loolu avant ñoo dem eh, bañ yegsee bur bi laaj leen ne yéen ay borom xam-xam bi ñaar ñii ay ngand lañ ci jamono wuute nañ ci masala ndax jamono yooyu asrul ilmi alzahabi la al asru zahabi fi ilmi ñu laaj léegi kan moo nekk ci dëgg rek ñoom ñëpp ñu ne alqawlu maa qaalawul kisaayi alqawlu maa qaalawul kisaayi woykat bi ne ne alxabnu fi lilmi ashja mihnatin ulimat wa atrahu nnaasi shajwan aalimun hudima ñu nax la ci xam-xam wala boog xabnu ci xam-xam nit ñi dajaloo kompuloo la ci xam-xam ne da ngaa juum te fekk yaa nekk ci dëgg ashja mihnatin ulimat mooy natt bi gën a rëy ci àdduna wa atrahu nnaasi shajwan aalimun hudima mu ne ñi ki gën a méttile nit ñi naqar mooy borom xam-xam ngoo xam ne dañ laa déggati toroxal la te fekk yaa nekk ci dëgg gis nga ba leen buur bi laajee ñu ne alqawlu maa qaalawul kisaayi waa ji def ko borom xam-xam bi def ko woy lisaaka ayat alal afhaami masalatun ahdat ila sibawayhi lxatfa walgumama قد كانت الأقرب الأرجاء أحسبها أشد لسأا من الزنبور وقهما وفي الجواب عليها هل إذا هو هي الهو أو هل إذا هو إياها قد اختسما وفي الجواب عليها هل إذا هو هي أو هل إذا هو إياها قد اختسم فخطأ ابن زياد وابن حمزة فيما قال فيها أبا بشر وقد زلما أبا بشر سوكو ديجي مموي سيبوي من ابن زياد أك ابن حمزة من لذا كأعيات على الأفهام مسألة من لطة من ديف مدق ديج لطة نانتي بين مسألة أهدت إلى سيبويه الحتفة مسألة بمويو سيبويه دي والغمما نخر مسألة بمويلان منقد كانت الأقرب الأرجاء أحسبها أشد ان من الزنبور وقعهما وفي الجواب عليها هل إذا هو هي أو هل إذا هو إياها قد اختسما من آه، لاج بموي قد كانت الأقرب الأرجاء جد أحسبها يا كارنا أشد لسعا من الزنبور موغن ميتي ماتتي زنبور وقعهما وفي الجواب عليها تنتبي هل إذا هو hi aw hal ida huwa iyaha mu ne fa lañ xulóowe waaye ne mu nekk fa xatta abnu ziyadin wa abnu hamzata ibnu ziyad ak ibnu hamza mu juumloo nañ fi ma qaala fihi aba bishrin loo xam ne aba bishri wax na waxoon na ko waqat zalamaa ñu tooñ ko abu bishrin daal dafa jóge foofu ci jotaay gi feebar yegg këram rek daal di génn àdduna masala naxu moo mel noonu xam-xam dafa sew waa jii di laaj bàyyi ku mu bëggoon galgal ci boroom xam-xam jamono mu galgal la ci doo ci man dara ndax boroom xam-xam la jàng fànn yépp fànn boo laal rek ci jamono moom su koy rek mat bu un laa taabiun dañ ko ci topp rek waaye topp ci kenn taalifam yi wane na ko man na téeméeri taalif macha allah kashful hijaabi ak yeneen yoo xam ne moom brouillon am sax su doon bind moo doon dem papeterie yi Oustaz Barham Diop laa dégg mu koy wax te am na téereem bu ma gis al yawaqit bind bindam bi nga xam ne ci brouillon bi la moom moo nekk ci ci ci ci téere bi ngay gis muy effacé noonu lañ ko muulee muy effacé di bind di effacé ma yàlla la kooku nag su jàkkaarlook benn waay boo xam ne waa joo xam ne nit ku ñuul la jàngu jàngewul ci école macha allah sëriñam bi muy génn àdduna ñaar fukkeet ak ñaar la am mu koy laaj masala bi ah jar na tiit waaye alhamdulilahi mayug yàlla moom soo ñëwee ba ci bàyyi fa nga koy fekk bi mu ko ne ayu fiilin ata bila failin yow ba jëf mooy ñëw te du am ku ko jëf mu teg ci ne ba taalama baxastu alayhi gestu naa ko ba sonn gisuma réponse bi te am na waaye nag li gën a doy waar ci waa ji dafa am mahaara ci luuxu maanaa cax def ci am yeewute ak muusaange bokk na ci yeewuteeg cax lay tontu cax ba nga dugal ko ci cax bi ba mu gën laa jege ba doo yaakaar ne moom la mu jël nag tontu ba dugal ko ca laaj ba mu ne waqat taalama baxastu alayhi yàgg naa di ko gestu te baatug taalama gi yàgg na ci arab mooy taalama fii la waaye du am faay mu daal di tegaat ne qallama yasuru allazi maarasa nahwa alayhi néew na kay bërëg ci naxwu kay kay jàng naxwu ak di jàngale naxwu néew na ba muy fenk ci alayhi ci laaj gii nii fiil googu nga xam ne du am faayil te faqat yaraahu la day moo ngi koy romb toujours nag pourtant ndekete xallamaa bi encore gis nga xallamaa néew na ak taalamaa yàgg na ñaari jëf yooyu ñooy jëf yi nga xam ne dañuy am dañuy nekk jëf te duñ am ka leen jëf ndekete ba muy pare rek góor gi jël na laaj bi tontu ko ci uslub bu gën a rafet ndax waxu ko sax lang may laaj nangam gi nangam gi la waaye def ko ne taalamaa tamma bi suaali jawaabun min habibin jiba sabilu ilayhi قال لما شد للرحيل قال لما شد للبيب رحيل لم ينل ما دن البخيل عليه تي عليه تي قافية عليه هي هي بوب واجي وخون وطالما بحثت عليه هائي بي تي نفس الوزن لك بايتون كيمان لا لحضرة الشيخ بوب لما يفاتلي لحضرة الشيخ سر زاهر بادي لحاضر أحوذي الفكر أو بادي إن تأتي حضرته الألي اجتمعت بها بالضب والنون والملاح والهادي بايتا تتساس إنك وإن تفكرت في ذا ممئنا نذرا تلفي الإله قريبا حاضرا بادي وتجتني ثمرة التوحيد متسفا بالذكر والفكر في في في في في, في إصدار وإيراد بيتين nga xamne baye Eh, Cheikh Abdoulaye Jéeji ba te mu imlaa woon ko eh, Baba ibnu Fata e, mawhiba la ci maxaara shiiriya naam laaj na ko tontu na maanaa gën na xam ne kii lam yaakaaroon ci moom nubu agam amoon ci moom moo ngi ci moom melo la ci doon nu ko ci yàlla muhammad te du kooku rek waaye ulamaawu kano sax ñoom li awwali maratin bàyyi di yegg si kano boroom xam-xam ya nekkoon foofu bañ dajee dañoo indi ay laaj waaye ki doon bind taarix bi nee ne bàyyi dafa tàmbali def benn muqaddima avant ñu ko laaj ba mu defee muqaddima ba pare mu ne leen ubbil naa leen bunt pour ngeen laaj li ngeen di laaj ñu ne ko wallaay ñun lañ yoroon ci laaj yëpp tontu nga ko ci sa muqaddima bi soxlaatul ñuy laaj dara eh, bàyyi doon na yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam encore ci mujj gi nga xam ne yonent bi def ko mujj te yàlla dénk ko li njëkk ñi ñëpp amoon bàyyi ñëw na mujj waaye yàlla dénk ko loo xam ne ñu njëkk ñi lépp luñ amoon ci ay xam-xam ci ay mbóot ay melo ay wiraasaat muhammadiya yëpp yàlla jox ko ko te fekkee dafa ñëw ci jamono gu mujj muy istishaad bayti ñaari baytu yi nga xam ne saahibu kanzil ji daara ko woyoon ما درني إن لم أجيء متقدما فالسبق يعرف آخر المدمار إن غدا رب البلاغة بلقاء فلرب كنز في أساس جداري دوما واني دار سوما نيوي مجو راوغي نيون كوي خامي تي دارنيير ميدمار بي في اربيت سيفلي ني ديبار كي راو فوف دوكو كو راو واي نيون كوي خامي تي اخر الميدمار من ولا ان غدا رب البلاغه بلقان سون ديمي با باكو بلاغه ويت fala rubba kanzin fi asaasi jidaari bari na ku doon gas fondement wu kër ba fekk fa trésor ba fekk fa kanzu bàyyi istisaat bayt yi naam dafa am lu mu doon bëgg a wax mooy li misri yi rek maa darrani anni ataytu mu fa sabqiya maalumun lada nazaril qalbi man wàññiw ma dara ne sama jabaru mujj waaye fa sabqiya mun sama raw man maalumun ñëpp xam nañ ko la daa nazaril ci xoolinu xool ci xoolinu xol ku fa xool rek dana gis ne man dama raw donte dama mujj foofu nga gis ni inni wa in kuntul axira zamaanuhu am na bu benn jamono sax maa ngi wax keroog laa déglu kaset bi may wax inni wa in kuntul axira zamaanihi sappu lisaan la woon rek léegi nag suñ waxee diw dafa jàng naxwu su jo waxee benn baat su ju su juumee te yëgu ko sax nga gis ku yaakaar ne noonu lañ koy waxee déedéet sàpp lisaan day am fekke bàyyiwoo ci xel sax nga wax fekke du noonu inni wa in kuntul axira zamanuhu man su nekkee ne al axira damaa ñëw mujj zamanuhu jamanum dama nekk koo xam ne jamonom dafa mujj zamanu bi mooy failu al axir bi axir sifa la sifa day yor day day jëf jëfinu jëf sifa day jëf jëfinu jëf ismul fa'il day jëf jëfinu fil sifatul mushabba bismil fa'il day jëf jëfinu fil masdar day jëf jëfinu fil mana day am fa'il motax zamanuhu bi ñëw nek fa'il al akhir inni wa in kuntul akhira akhira bi khabar kuntu mais zamanuhu ñëw nga rafa ko mu nek fa'il fa'il akhir bi mu suma ñewé sama jamono mujju inni wa in kuntul akhira zamanu la arju bisharatil amin li sahbihi yakarna amna lu yonent bi begalon sahabami amna ci yakar moy ay hadith yo xamne man nañ man nañ ko bayyo benen yon ndax dafa gudd ñu continue ci wirasa gi yonent bay don na yonent yàlla muhammad ci mana muñ ak yenu tahammulul izayati maanaam lor yu bëri yi nga xam ne soo sooy wootee ci yàlla danañ la ko lor nga muñ ko ba nga am réussite bi loolu bàyyi doon na ci yonent yàlla Muhammad yonent bi de nee ne ñun dañu yaakaaroon yonent yàlla nuuhu la. barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan.